yi salaamaaleykum d'abord damay euh, remercier délégation bi fii professeur Yabal di remercier aussi not camarade euh, qui est un chef d'entreprise aussi dudu euh, Doudou Ñaaña Diop xale Soumbédioune nag li ngeen dégg ñu wax yëpp euh, loolu complicité la yàgg na ak Guy Mariama Layen Penc Gueule Tapée li ñuy sante camion yi ñu fi joxe li ñu def yëpp ay nit ñoo ko joxe donc nit ñoo ñu ko joxe aussi ñoom la ñuy sant di leen gërëm euh, professeur euh, moo ci njëkk moom moo ci def taxawaay boobu yëpp kon ñu ngi koy sant ci li muy def ci dëkk bi ñun nag xale yi dañu sollicité bëggoon ñu ko tuddee amuñu dayo bi ñu gis ne wax dëgg yàlla waaye xam nañu ay nit ñu nga xamante ne tey mën nañu jàppale waa Soumbédioune kon li ñu fi def ba journée bi nekk une réussite dañ leen koy santé di leen ko gërëmee di ko gërëmee professeur di wax ne aussi ñi fi ñëw ñëpp muy le maire de la ville am na fi taxawaay bu rafet Soham Wardini le maire de Fann Gueule Tapée Colobane euh, de Fass Gueule Tapée Colobane aussi ñoom ñëpp ñëw nañ le camarade euh, notre ami DG Cheikh Ba aussi ñëw na fi Médina ñëpp mobilisé wu nañ Gueule Tapée Fann Point E Amitié ñoom ñëpp ñëw nañ pour que Soumbédioune mel nii mais li ci ëpp solo mooy suivi bi après suivi bi nag ñun responsable lañ fii la ñu nekk danañu fexe ba accompagner xale yi ba mu am suivi Euh, di leen sant aussi yéen la presse seen taxawaay parce que yu mel nii moo jara a couvrir pour que nit ñi di mën a roy ci lu mel nii looloo am baie ann ñun jàpp nañ ne war na am euh, baie de liggéey boobu war a war na continuer kon loolu lañ bëggoon a lancer comme message di euh, gën a ñaaxaat ndaw ñi aussi ñu liggéey wax dëgg yàlla parce que li nga fi nga xam ne fa la ñu amee teranga c'est à eux de l'entretenir jërëjëf wa salaam. mais il la soutenir le nettoiement de la baie uh-huh. Machallah, euh, le professeur Goroussi, il n'était pas demandeur. Euh, les jeunes se sont orientés vers moi-même en tant que responsable au niveau de Dakar. Je leur ai proposé euh, le camarade Gorgissis pour au moins les accompagner. Tout au début, il était vraiment fier parce qu'il me l'a dit personnellement que c'est ma famille. Les Lébous, tout ce qui est plage, pêche et autres, ça c'est ma propre tradition. donc Amadou vraiment ce serait vraiment heureux de de de faire quelque chose et d'accompagner ces gens kon li mu leen jox permettre na leen tey ñu mën a am ay camions mën a ut aussi euh, tracteur dégg nga ni ko xale yi waxee léegi tracteur bi ñëw équipe technique aussi bi fi ñëw def liggéey bu am solo boobu yëpp moom moo ci dugal loxoom kon dañ koy sant di ko gërëm voilà. ma représenté fi tey monsieur le maire Gorgui Ciss maire de la commune de Yène moo nañu. depuis bërka démb événement bi am Soumbédioune bëgg naa au niveau di conseil local ñu former benn délégation mën a dem assister ko alors moom dafa yaakaaroon na sa affaire bi suba si dimanche bi mais tey suba bi mu déggantee organisateurs yi la ma woo ne ma immédiatement jugal nga dem teewal ma Soumbédioune mais wax ne góor siis euh, dafa doon nappkat donc lépp lu nappkat yi di def moom def na ko si géej donc tey bu ko askanu napp soxlawee tiis ko seen mbir tey da koy rafetlu lool mu ne looloo tax mu sawar jàpp si def ci lépp lu mu man di wax ne aussi moom mu doon doomu Soumbédioune bu ñu fàtte ne siis université bi la jàngee doon fréquenté fii fu ñuy wax daara bi daara alxuraan bi daara Maodo Ndiaye doon fréquenté Soumbédioune autant moom mu xamoon Soumbédioune ni mu meloon si rafetaay si taar si setaay tey mu gis ni Soumbédioune mel muy loo xam ne vraiment neex ko lu ko naxari lool donc bu gisee ay acteur de la pêche yoo xam ne dañ jug pour loolu ñu jéem ko fi dindi jënd fi saltement bi dindi fi yëpp day am mbégte am contentement jàppale leen réunion moo ko téye mais lu ko gënuloon tey mu teew fii tey donc vraiment muy gërëm waa suba ñu gépp surtout Adama Mbengue di leen wax ne c'est le début d'une collaboration mais mu ngi ñaan yàlla mu continuer incha allah